li ma leen di njëkk a laaj mooy Macky Sall fan la jàngee ba am lu mu am tey Sénégal la jàngee waaye mosu ko fayal mu jàng waajuram bu jigéen mosu fayal mu jàng école publique yi moo ko defar ba mu nekk li mu doon tey tey nag nga wax ni réew mi côté spirituel dañoo war a jóg pour taxaw seen askan bu sëriñ da toog rek di jël adiya après askan wi di dee parce que tey population bi sonn nañu tey Macky dafa war. tamit Sénégal bi nga xamante ni ñoo ko faloon à 65 pour cent tey jii suñu taxawaay mooy ëllëg war ñu toog suñu doom di ñu puso bi lu tax ñu réer seen loxo ndax tey ñun du ay expert ci wàllu pétrole mais dafa am ñaari kàddu yoo xam ne dañoo Sall décret bi mu signé Frank Timis mu am licence ndax Frank Timis am na capacité technique ak financière mu jël licence boo xam ne kii kese la def ci ay transaction moo jël suñu ay milliards yoo xamante ni suba askanu Sénégal ñun suñuy doom waroon nañoo jàng hôpital ñu war a faju dëkk bi war a am ndox am courant loolu la nekkoon ñun dañu war a taxaw pour xeex pour Macky Sall leeral loolu loolu mooy suñu taxawaay tey wax leen ni askanu Sénégal tey Algérie libéré nañ seen peuple ndax peuple bi dem ñoo am souveraineté man suñuy wax ay loi ak règlement day fekk mu doon loi yoo xamante ni dafa am équité mais mënuñu comprendre ñenn rek ñoo fi nekk di dund askan wi ñu ëpp ci tey loolu ñun ñoo war a taxaw xeex ko xam ni Sénégal mérité wul loolu tey souvent libéré nañ seen peuple dañuy wax ni dëkk boo xam ne am na pétrole dafay am malédiction loolu man gëw ma ko ndax makkatal mu karam tey fa la yant bi tëdd pétrole moo ñu fa taxaax amu fa boo demee Dubaï 84 tekki yu ñu woon dara tey réew yëpp ñoom ñoo ci gën a émergé te Sénégal tey ay taxes lañ doon dundee nak am nañ ressource naturelle yoo xamante ni su am nañ ay dirigeants yu baax am volonté suñu doomi yi ñom ñoom jarino kon combat bobu ñu ñëpp lañu wàcc ci tali bi jakkar jàkkaarloog nak Sall mu leeral pétrole bi ba keroog lépp di leer ñoo ngi leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah